question bi oustaz kii nag moom neena jabaram du julli te loole du julli te loolee dafa tax ñoom ñaar ñuy euh, xuloo lu bari ndax moom dafa bëgg jabaram du julli ba mu bëgg ne daf ko bëgg a daal di yeewi daal ndax moom jikko jooju neexu ko ci moom eh, da moo <laughs> waaye eh, famille dañ ne rek pap attention waaw loolu wax mais xam naa waa réew mi teema laa bàyyi nga tontu ok <laughs> yow sariya ak topp man saa bakkan laay topp <laughs> diine ak jamono Sidi Lamine Niass la mu créé woon man man la ko waroon jox kiya jigéen judul julli hmm. jar na may baat mu ñibbi kër baayam waaw ah, loolu la sariya wax hmm. ku dul julli kenn du lekkandoog moom ci benn bool kon de bool yi wéet nañu maanaam par exemple bu ñu tegoon ñaari bool ñu ne la kii julli fii la sukk demal ci beneen bool bi nga lekkee fa li dox ci diggante jullit ak ki jullit mooy julli julli mooy kardante jullit dëgg la d'accord assalaatu imaadu diin d'accord man aqaamaha faqat aqaama diin mhm. wa man hadamaha faqat hadama diin balaa balaa ñuy régler benn problème problème julli d'abord mais yonent bi wax wax yonent bi nee na ah. kiyaa mhm. képp ku dul julli na nga yëg ni màbb nga ponk diine mhm. daaneel nga ko yow mhm. Mhm. fekk nga diine taxaw nga gor nga gor poto yi ba mu daanu boo dul julli te jigéen ñi la plupart ñu ci bari duñu julli Sénégal jigéen ñi mën nañ lu ne ba mu des julli bokkul seen programme am na koo xam ne bu makk yewoo bay bañ jàpp na ni wër te dindi maquillage am naan day jàpp di julli te damaa mag yow moo tax mënumaa julli damay bàyyi ba ñibbi du ngànt yow bi kii yaa mii xale bu ndaw bokk ñu bokk ak moom émission bi doo ko ko ci bu tax nga ko ci boole daf laa def dara parce que yaa ngi mel ni ku koy gaarwaale xam nga comme dangaa bëgg turu kiyaa la fekk foog nga tudd ko waaw mais amoon naa jabar ju tudd yow tamit te dañoo am dëj fan yi maamam daa gaañu fa laa bëgg a dem suba damay jaale ji par la force suba moom par doit ji dama gis moom ba pare mère Salma maamu kii ay dara mère Salma sama chéri la woon moo jur yaayam mère Sukay te dëj bi moom suba su suba moom ala kulli haal moom suba kii ay dara dina ma gis de xam ngeen fi fekk man su ma naree daanu suuf si laay diwoo par droit moom li ma fay tëree dem suba laa gisu incha allah <laughs> lu leer laa la war de. yaa ngi dégg kii suba à tout moment yónni li ma site yi <laughs> ñu daal ring light ak portable comme dañoo lakkal nit ñi. na site yëpp ñëw suba Padois. <laughs> yaa ngi dégg Kia <laughs> donc jullit. Mhm. buñ ko dee wax mhm. jullee tax. Mhm. jigéen joo xam ni doo julli. ba pare di nelaw ba yàndoor di biddanti. du yoon dal nga xel. yoon. julli moom la góor ga ni woon. di sàggan sax ba di ko yéex a def. laa gën a mën a taloore ñàkk koo def. donte la yéex a julli bokkul ci lislaam fa waylun lil musallin alladina hum an salaatihim saahuun alladina hum yuraauun wa yamnaauun almaaun te dañ ni asalaatu fi waqtiha ndax inna salaata kaanat ala almuminina kitaaban la ci ponk lislaam yi jullit bu nekk da ko war a fonk di ko def soxnaam soosu na waxtaan ak moom may ko sens mooy sama digganteeg yow pour mu continuer del julli soo mënta julli prends ton bagage. prends ton bagage voilà parce que waxoon nga ko ci góor sax ah.